of the king. Baay Jiney maamu Serigne Cheikh. Baay Jiney kon kon lu ma bëgg ngeen jël ay loxo. dugal ko ci gémmiñ gi ne vaas loxo yi ci gémmiñ gi ci gémmiñ gi ci gémmiñ gi ci gémmiñ gi loxo yi ci gémmiñ gi ci gémmiñ gi loxo loxo ci gémmiñ gi ci gémmiñ gi gi gi gi gémmiñ gi gémmiñ gi ci nekk ci gémmiñ gi ci gémmiñ gi ci gémmiñ gi ci gémmiñ gi ci gémmiñ loxo yi ci gémmiñ gi loxo loxo gémmiñ gi loxo yi loxo yi loxo yi ci gémmiñ gi dugal leen ci gémmiñ gi dugal dugal dugg ci gémmiñ gi ci gémmiñ gi bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas leer na wala leerul mu ne may yàlla la du force du col force col crazy du force du col force col crazy la mayoom fal force fala force du force rek du col force col crazy la mayoom waaw God is one God is one Dieu est Allah ko moo doon ñun defa dara dañuy tàmbali te nag defe naa ne lu ñu fi jot def ah ah gisa goo leen ko ko fi def de wax rek lañuy dégg waaye duñu gis jëf Thierno nag moom du wax day jëf mooy ëmb sëriñ <laughs> waaw waaw maa ëmb Serigne Seck. macha allah. sant yàlla rek nag ñun ci yonente bi. sant suma ma waajur bu góor moom moo ko Aliou Sow. macha allah borom leer yi bëri. macha allah. sant suma ma soxolon. suma maam Sunjata Kayta. yoro tengera koli tengera maanaam boo déggee sunjata yoro tengera koli tengera ci sunjata lañu bokk ñoom mbay ñoom ñëpp ci famille sunjata bi maanaam ñoom ñëpp ay sëriñ sunjata kay xale famille dafa yaatu su ma doon lim fii euh, famille sunjata fii ba suba du jeex ndax dem naa ba Manding dem naa ba Manding wër naa gis naa dox naa gis naa macha allah dem naa ba suma maam fu nekkoon gis naa lépp dox naa gis naa macha allah dañuy sant yàlla. def naa ni gis ngeen couleur bi may bi mooy tigre gis ngeen mbaxane bi gis ngeen daal di kon xam ngeen ne suñu jotaat euh, euh, allah ni moo nekkoon couleur Sunjata boo waxee Sunjata danga naan couleur sec deru sec te defe naa ne ci monde entier man mel man ngeen di gis kuy utiliser lii. boo déggee Sunjata histoire Madi lii la ci bokkoo lii Sunjata moo war a bi def ko yére def ko mbaxane gis ngeen man def naa ko baxale def naa ko daal la gis ngeen tissu yu may sol sax ay tissu cinq la kon loolu mooy Sunjata vrai le roi di Manding waaw histoire Sunjata boo ko dee boo ko jàngee rek da ngay kii mooy setu Sunjata moo doon Sunjata soo ko gisee rek yi ak man ni may jëm leen ci tey da ngay xam ne ne Sunjata rek la. Sunjata dellu si waat si waat maanaam Sunjata rek la. te nag man sama maam dama ko dévier Sunjata dama dañ naan euh, sët waaye sët dana dafa raw li ma yàlla jox jamono barke alxuraanu karim xam nga suma maam ceddo ñoom ay ceddo la su dee jamono ji ñun diine lislaam bi nañu di wéetal suñu borom liggéey suñu borom nekk mu xaddam Cheikh Ibrahim suma baay seedeel ma Cheikh Alma Mamadou Aliou Sow Cheikh Alma ay kilifa yu bari Cheikh Alma ay jinne yu bari ko si ay kilifa jinne yi nga xamante ne ci yoon yi la def ma ay muhadda ndax fi ma jaar ak ñoom li ma jëflante ak ñoom li ñu yoroon ñu jox ma ko ay jinne nga xamante ne ay waliw lañu ci yàlla doon ay muhadda ñëw jébbal ma seen bopp jébbal ma li ñu yor ne ma vraiment kat ñun kat gannaaw yàlla yonent bi ñoo ngi ndax kat li la jox ak li la yàlla dénk moo waral lu ñu yoroon yëpp jébbal nañ la gis ngeen Mouhamadou Moustapha bii nee na ruwa xaaxaa gis ngeen jinne yi fi jaar dañu bari jinne nag soxor du nit maanaam bu la bu la joxee bopp da lay jox bopp jox la geen jox la nopp jox la loxo jox la xol nit nag moo lay jox làmmiñ nit làmmiñ kese la lay jox du la jox xol du la jox tànk maanaam làmmiñ rek soo soo soo fekk na ci làmmiñ ba la yem waaye ñun xam ne dofuñu borom jinne kenn du ko nax maanaam il m'a il m'a fait rire les gens là il m'a fait rire parce que nag damaa xam xam bàcca li ñuy wax xam bàcca xam toog laa def noppi moo tax nit du ma jaaxal ku yor ay jiine defe naa ne yéen samay taalibe yi dangeen ma koy seedeel chaque jour wax fii chaque jour ma ne la diw defe yaa la chaque jour te yéen li may wax yéen a koy gis damay gis lu ñëw. ñi ñuy gis ñi ñëpp wax naa fi ay defe naa ne chaque jour ma ne kii defe naa la dugg sama dem jooy ceerno dama la bëgg ceerno dama la bëgg ma naan la uumu rek uumu rek laa lay jàpp parce que xam naa ne da ngay fekk gëmoo li ngay wax sama poos la bëgg ma ne la uumu rek damaa yaatu xool bu bëri yërmaande waaye bu la ne ku toog sama kanam soo ne dama la bëgg ma ne da ngay fekk ah dana bëri ñu ma ne da ngay fekk de barke alxuraanu karim dara dara du ndax nag boo yoroo ay jinn dañ lay informé dañ lay informé naan la diw defal ci moom lii ak alxuraanu karim su ko defee ma ree ma noppi léegi diw moomu nag su ma gisee day daw di def loolu di kuréel kàddu di yàkkamti ma sama xel li ngay def gëmoo ko na man xam naa la bu yàgg barke alxuraanu kare bu ma wax sama xel li ngay def gëmoo ko mais man tam ma nopp rek gannaaw daf may réer ma gën waaye fekk na man pare naa ko bu yàgg moom du ma ma bett ma def. du ma bett xam nga koo bett mën ko waaye koo bett doo ko mën man kenn du ma bett barke alxuraan bu karim kenn du ma bett billaahi wallaahi tallaahi kenn du ma bett li ñu wax lu la bett mën waaye li nga xamante ne bettu ma bett ndax nag ñi ma àndal ñi ay caaxaan jinne yi ay kilifa la xëy na man li ma mën ci ñoom xëy na man waaye doonul ku ne mooy jàpp jinne di def lii jinne yi jinne yi fayda de jinne yi ñàkkuñu fayda ay kilifa lañ ay waliw lañ ay ponkal lañ ay xeexkat lañ ay bañkat lañ jinne bëggul ku ko toroxal bëggul ku ko humilier tey boo ko naree toroxal daf lay a faat man nag dañ may jéem a faat duñ ma mun a dara dañ may jéem sànni ay ay feebar ay liggéey waaye du ay ndax damaa belende sama bopp yàlla ci boppam moo ma belende du takk téere du sànni macha allah te ñaata sëriñ ñoo ma toogal tey ñaata sëriñ ñoo dugg xalwa pour man saa soo ma gisee maa ngi en forme kooku yàlla jàppale rek moom mun loolu xam nga ne man bu ma amuloon xam-xam dee naa bu yàgg ñaata dëmm laa jàpp ñaata dëmm ñoo may xëy di seetaan ñaata bi ñaata ay milliards jinne xam nga ne bu ma amuloon xam-xam dee naa bu yàgg Touba def naa fa def naa ko lu ne liggéey naa ko lu ne jàppale naa ku ne macha allah yëpp dafa bari boo duggee xool suma ancien vidéo yi foofu laa gënoon am yaram fii nag jamono ji kat damaa boole woor ak liggéey moo tax ma jeex sama taalibe ku ma woo Thierno dana jeex cey Thierno dañ laa yërëm Thierno noppalekul Thierno doon nelaw man sax damay rus ma ne waa gars yi ku woo wax ma damaa jeex ah ma jeex parfois du ma reer du ma xëdd te boo ndogoo nga nekk fi ak jinne ba ay quatre heures jot ay cinq heures ngay jëkkante xëdd bi doo reer foog nga jeex waaye nag jeexu santé la jeexu wër wër jeex bu ànd ak doole la ak kattan ndax lépp lu ma bëgg def dama koy def nga jinne bu ma jàkkaarloo wàccee kon nag jeexaay bi c'est normal te damay woor aussi du ma wooru gaale am na sëriñ yu bëri ñu amoon duñ woor moo tax ñuy góob rek nga ne weeru koor ku ñu ponkal wooroo. man barke alxuraanu karim ñu bëri du ñu woor man xam naa ma ne ñu bëri du ñu woor ñun nag dañuy woor moo tax may jeex mu doo boole woor ak ay jàpp yi ne di wax di yuur doo lekk doo naan ba man fa nga jeex barke alxuraanu karim ba weeru koor gi commencé ba tey li ma reer bariwul mun naa ko compter lépp maa ngi ci jinne yi dama toll ci ñoom ñoom léegi léegi mënu ma dem bàyyi jinne yi jinne yi mënuñu ma bàyyi parce que léegi ku feebar ñu ne yóbbul kër Thierno Moule heure boo ñëwee sama kër jinne yaa ngi fees dell du ma mën a def foog ma nekk ci ñoom jublu ci ñoom xettali leen jàppale leen ne ñuy jóge Gambie ñuy jóge Italie gis ngeen xale bu góor bi tuwaale tuwaat na ñëw toog ndeysaan gis ngeen sànq jinne bi lu ne def na ko gis ngeen instant Maodo Malick la Dabakh Malick la ñu gis nii. naan bi dañu ñëw ñu gis ngeen gis ngeen ndeysaan. baax bi moo nekk noonu ndeysaan. ndeysaan xale bu ndaw la 22 ans la am gis ngeen ko waroon mu nag di nga réussir ndonk ba nga ñëwee fii gis ngeen ndeysaan xam ngeen ne ki doon wax sànq ak kii bokkul de image bi la waaye nee na wax xale bu góor bu sérieux la gis ngeen waaye bu jinne ñëwee day nekk beneen nit kon dañuy sant yàlla li ma yàlla defal dafa rëy lu ma suñu borom defal ba nga nekkee liir ngay faj dinañ ko wax rek du man loolu ba nga nekkee liir ngay faj faj sa yaay uuf la ngay faj faj <laughs> ah ah. ah. nga ne xam naa ci dara. ah kii yonent bi xam naa ci dara. kii de setu setu kii la bàyyi ñax la. billaahi wallaahi talaahi. nit ñi xamul loolu. waaw waaw waaw. bëgguma wax xam nga xam naa. ndeysaan xale bu ndaw bi juddu. ndeysaan jàpp ci di leen xot ci néeg bi ba ñuy yuuxu. ndeysaan kon suñu la waxee ne la yow bi nga nekkee xale ngay faj. ndeysaan jàpp ci ne xam ñu ko ñu ko dundul xamuñ ko. dëgg la waaye man xam naa. ndeysaan xam naa. ndeysaan sax comme xale lañ yor nag doo bëgg a wax waaye man xam naa ko. ngeen loolu. te Thierno Moule. kon sant yàlla man man yàlla li ma defal dafa yàlla nag bu la maye. du nanguwaat may na la kese. de jamono ji xalifa yàlla ci kaw suuf man la jamono ju ne ak yàlla ku muy wàcce ku muy tar jamono june ak yàlla ku muy def xalifam jamono ji man na yàlla def xalifam ci kaw suuf ndax nag jinne yi dañoo bëri doole am xam-xam na dañoo tey ponkal dëgg da mën a jàkkaarloo jinne yi ponkal nag du ci yaram ponkal du ci yàpp ponkal ci baatin la ponkal ci xel la rek du ci du ci yàpp yaram yàpp yaram suuf la ponkal boo déggee ñu naan kii diw ponkal la baatinam bi moo tax ñu ponkal waaye ponkal du ci yàpp yaram du graisse ndax graisse mooy gonfale loolu ne ñun nag dañoo daw graisse soxlawuñu graisse ndax lu ñu bëgg a def dañ koy def kon nag dañuy sant yàlla julli ci yonente bi waa Sénégal war nañ yeewu waa aduna bi war nañ yeewu xam nañ ne kat Thierno Moule lu muy def ci jinne yi actuellement moom kese la yàlla jox sirru jinne ni ko suma taale boobu di waxee monsieur Dieng ah ndeysaan Thierno mu bëgg a wax nit mun a liggéey téeméer at du am li nga am ci bopp parce que loolu jinne man moom ko moom moo xam nga Babacar ma fii la ñëw taxaw mu ne man xañuma si seen bopp yéen ñëpp ci Thierno laa xalaat fi laa xamee ne ñu ko bopp parce que jinne bi ñu demaatee jinne yi di jàpp seen yaay Babacar lu ndaw li moo jàpp jinne bi di ko dóor bu muy yóbbu kon bi nga waxee ne xale bi ma nekkee xale laa jàpp kon nit ñi xamuñu ne dimension bopp la yàlla moo koy may jàmm da nga liggéey ba sonn sonn da nga liggéey téeméeri at doo ko am. billaahi wallaahi talaay parce que nit ku ko dundul xamoo ku dundul loolu xamoo ku dundul loolu xamoo loolu moo tax nag dama bëgg jaam yi ñu xam loolu li nga wax nii pour ñu xam ko ñu xam ne yàlla mooy maye te daf la ko may daf la ko may mu nit mun a liggéey téeméeri at du ko am du ko am. mën na li téeméeri at ko am fi nga doon dem yëpp nga di ko wax ci àll nga di fa dem ci génn jinne yi topp si ginnaaw di la aar loolu moo am ku yàlla defal daf lay utal ñu lay aar te ñooñu la def ba jamono tey jii nit dana jëm sax bëgg la xoj du ko mun nit dana ñëw jinne dina ñëw bëgg la def dara du ko mun parce que loolu moo tax li may wax ni nag man dama ko dund dama ko dund dund li ma tax ma dund ko dama ko dund ak ay jinne dama ko dund ñu ma ko koy wax carrément mën nañ la jam yow te du la jam bi du dugg est ce que su ma la jamee te jam bi dugg dama lay bàyyi da may da ngay bàyyi ci yow donc déedéet jinne moo ma wax loolu jinne moo wax yow li nga doon moo wax kii ko téye tamit di ko dóor ma doon kon Thierno kenn mënul mel dañ nam loolu yàlla moo la ko billahi wallahi tallahi lii amul yal naa toog. Ah, man Sénégal yow kay ñëpp xam ne. wallaahi naa man àdduna yëpp mën nañu si t-shirt. dañu waxante dëgg tey dañ daan gis yére ñu bind ci ay xaatim alxuraan mu daan aar ay nit di protéger ay gis nañ t-shirt nga xamante ne photo moo ci muy aar nit gis nañ yére nit. Mamadou ndeysaan dafa sonn. Mamadou Diagne dafa sonn. le ancien ancien marabout dafa sonn. ndeysaan euh, gis ngeen t-shirt suma t-shirt man man yàlla li ma defal dafa rëy lu tax ma wax loolu tey am na fi paaka am na samba am na demba tey macha allah ayatul kursi kenn ku ne xam na ci alquran la nekk. jinne yi ñemewuñu ko waaye parfois nga jàng ayatul kursi jinne yi jàngal ayatul kursi est ce mën a ayatul kursi da nga mën a jàng ayatul kursi bu jàng ayatul kursi moom dafa saf saf ayatul kursi parfois nit muslu ayatul kursi jinne ñëw sonal ndax jinne bu ñu ñëw ñu ñu jàng ayatul kursi waaye boo sonnee ba sonn nga ne barki Thierno Moule Sow barki Thierno Moule Sow barki Thierno Moule Sow jinne yi daw. xam loolu dafa leer tey man man man sama xam-xam dañu ko waroon exposé. ay festival di ko jàngale ndax nag li ma wax sama maam dama ko déggee Sunjata Sunjata amul yére buy jàpp ñene Sunjata turam turam du jàpp ñene setam ñëw na turam di jàpp ñene yéreem di jàpp ñene fotom di jàpp ñene tey man def naa lu Sunjata deful Sunjata le roi d'Afrique a moi je dévié Sunjata sama maam sama maam tey ko romb daanaka moom loolu la doon ñaan man tey sama t-shirt jinne yi ñëwewuñu ko suma t-shirt actuellement vingt cinq mille francs lay jar maanaam kiti saaya poroya saaya saam si sama roosi yooyu actuellement vingt cinq mille lay jar juróomi junni juróomi junni lay jar am na ñetti ceerno moo lay soow gis nga t-shirt tàllal ko actuellement nii boloya saaya actuellement bii vingt-cinq mille lay jar xam nga ne lii baatin la tey lii boo ko solee tey amoon feebar feebar ba génn ci yow nga sol ko tey mu lakk jinne yi jinne bi seede na ko jinne bi seede na ko jinne bi seede na ko boloya saaya boloya saaya saya boloya saya turu ti sëpp laay wax boloya boloya saya boloya saya boloya saya boloya saya gis nga xam nga ne man yàlla daf maa may man du ma wax sama yite fay wax lii actuellement vingt cinq mille lay jar bu dee ci États-Unis moo ngi jar hundred hundred dollars lay jar cent dix dollars lay jar ci États-Unis ci biir capitale Amérique dañ ko fay jaayee suma soxna moo ko yor soxna Mariama Moulay actuellement gaa yaa ngi koy jënd ci États-Unis ñi ñaan ngi njëkk duñu ko jënd mu leen koy posé partout dans le monde ñi nekk bitim réew ñoo koy jënd kon xam ngeen ne vraiment t-shirt moo koy wax vingt-cinq mille francs lay jar wala yaa saa yaa kii nag nag gis ngeen ngeen bët yi gis ngeen leer boloya saya bo bo o bo lo o lo ya saya boloya saya Kami cerno mula bo o bo lo o lo ya ya sa mu ne looy wax amoo dara looy wax amoo lenn looy wax loolu moom dañaa war a félicité ndax nag bu sëriñ si defoon li nga def macha allah Cheikh Cissé moom la dimbali nit ñi Cheikh Cissé médicament la Cheikh Cissé médicament la mu ne sa tur médicament la sa tur médicament la Cheikh vingt-cinq mille lay jaar juróomi junni waaye am na yeneen yu ñëw de alpha yu tey alpha yu baati alpha yu tey alpha yu baati alpha yu baati yooyu ngi ñëw yooyu cinquante mille lay jaay bu soobee yàlla adduna bi xam ne dinaa dimbali askan bi man Thierno Moule suma xam-xam ak suma baatin danaa ko laabe biir askan bi yàlla li ma defal dafa rëy yàlla li ma jox dafa rëy dinaa ko dimbale askan bi ci kàttanu yàlla munuma dem fu ne waaye sama tur moo ngi fu ne bolo yaa saa yaa vingt-cinq te du fi taxaw ñu ngi koy jënd ñu ñaa ngi koy jënd ndax moom ci ñoom ci gis njëriñ tey am nga xamante ne yaa saa yaa yaa saa yaa yaa mu fort. bii mooy bébé. Idrissa Yaya. amoon loolu ko yéen ñëpp ay wax. bii mooy bébé. Idrissa Yaya. waaye fortul. bu ma nee un deux trois ngeen di xuxal doo ko bon. kër gi kër gi kër gi. soo fi nekk du ngeen mënal dara waaw c'est important macha allah. bii ba léegi. Kitisaya. dégguma. Kitisaya. dégguma. Kitisaya. bii. wala Saya. bii. wala Saya. bii. wala Saya. kon nag alpha yu jeey alpha yu baati bi moo ngi ñëw. alpha yu jeey alpha yu baati bi moo ngi ñëw. bu ñëw ñëw day am gis nga ñetti Thierno Moule di bëri ni ñu bëri France tey ñu bëri dañu amoon problème mënuñu ma gis yónnee ay nit ñu ñëw naan ma sol duñu ma gis dañuy jël tisaan bi sol am jàmm barke alxuraanu karim euh, man damay jàppale sénégalais yi jàppale jàmm yàlla yi te du ma ci boole wax ndax nag suma xam-xam ak suma baati romb na ay wax léegi damay jëf macha allah gis ngeen t-shirt ndeysaan yii vingt cinq mille lay jar te lii mu jëriñ la aar la sàmm la dimbali la fii lay jóge ci kër gi dama ci def suma baati dem ci suma ñaan lii sama photo la gis nga waaye photo bi leer kese la gis nga boo xoolee photo bi sax da nga xam ne ne gis leer la macha allah ñi ñaa koy jënd si fan yi sax dafa manqué waaye am na ay soulèvement yu ñëw ak ay petit jigéen tamit jigéen jigéen yi ay petit dina ñëw ak ay soulèvement boo leen koy fóot moom ne leen koy fóot suba ba midi macha allah suba ba midi bu leen ko bàyyi mu waa ngeen beeru bu leen ko bàyyi mu yeddu ci lii bi parce que kii du tisee tout simple jëmm la jëmm la tisee ngeen di gis waaye lii jëmm la ruub ruub ruum bi nag boo ko solee nga xam ne protéine daf lay aar. kon xam nga ne lii suñu borom rek moo ko moomal lii suñu borom rek moo ko moomal ndax man sama liggéey romb na Afrique romb na Europe ndax t-shirt yi foo dem ci àdduna bi am nañ foo dem ci àdduna bi am nañ ko foo dem ci monde entier am nañ t-shirt yi ba ñu ko dalee jaay ba léegi war na ëpp deux million t-shirt yi deux millions t-shirt waxuma la xaalis deux millions t-shirt benn ñaar ñett ba mu mat deux millions te ñi ñaa ngi koy jënd instant bii nii sax yi fi nekk bëreetul mais yeneen yaa ngi ñëw lépp nag pour dimbali jaamu yàlla yi ndax yàlla bu la joxee xam-xam tey soxoruma iñaanuma tey am na yu bëri nga xamante ne mënoon naa wax xeeb sama bopp ak sama njaboot mais dama koy jaamu yàlla yi ndax yàlla di jëriñ nit ñi ndax tey man ñi may jëriñ ñoo bëri man ñi jëriñoo ci man ñoo bëri tey su ma noonu sax dañuy jëriñu ci man loolu nag dama koy sant yàlla suñu borom tey man su may dama leen di jëriñ man te ñaan naa yàlla di jëriñ su may noonu di defal su may noonu di leen xettali di leen sama noonu di waaw di defal say noonu loolu mooy sa doole kon gis ngeen ne actuellement ci adduna bi yëpp mel na man maa fi jaay ti si sëb yi vingt cinq mille quinze mille bu la yàlla kii ngi yu njëy alpha yu baatina kon ñu na na óol soo ci na óol tamit dina ñëw ay jinne yu mag la ñu óol óol ay dëkkuwaay soo ci na óol soo ci na pamanje Maodo koroo yàlla nabi yàlla nabi duree duree te soo soo soo jinna dëgg boobu dama ko. waaw vraiment sama bopp dama ne soo maanaam yow yaay jinne yow yaay jinne soo ñin na soo soo ñin na. waaw boo baaxee la. man tam keroog maa ngi ànd ak sama yaay soxna Mariama Camara. mooy ci soxna su baax soxna si pour affaire biir Màkka bi weer bi dama weer foofu ah dina ngeen toogal de si ngeen di wax ko meer yaa ngi may de ndeysaan bu baax ma ne ñaanal leen kii bi ndeysaan ndax mu nekkee xale ba ak ma ne meer yaa may yaa may weer ah yaa may yoole ah ndeysaan gis ngeen loolu ñun fu ñu toog toogaale jinne moo tax ñu ne soo soo soo jinna na bi nduree nduree tee soo jinna soo yanna nabi yanna nabi nduree nduree tee kon gis foofu Samsi Zamarosi. Samsi Zamarosi. Samsi Zamarosi. Samsi Zamarosi. Thank you. ዛግዚ ዘመኑ ዛግዚ Zamsi, Zamsi, Zamsi, Zamsi, sama ruus Samson sama ruus Samson sama ruus Samson sama ruus Samson sama ruus Samson sama ruus Samson sama ruus Samson sama ruus Samson sama ruus Samson sama ruus Samson sama ruus Samson sama ruus Samson sama ruus Samson sama ruus Samson sama ruus Samson, Samarusi, Samson, Samarusi, Samson, Samarusi, Samson, Samarusi, Samson, Samarusi, Samson, Samarusi, Samson, Samarusi, Samson, Samarusi, Samson, Samarusi, Samson, Samarusi, Samson, Samarusi. คนคนคนคนคนคนคนคนคนคนคนคนxam nga liggéey bu may def métti na de ah gis ngeen li may def aw ma hygiène de vie maa ngi ci jaamu yàlla yi ah. Zamorose, Zamorose, Zamorose, Zamorose, Zamorose, Zamorose, Zamorose. Zamorose, Zamorose, Zamorose. na ko ñëpp uti t-shirt yi ci kër am day protéger nit ñi da di aar leen di sàmm xool gis nga tuuf li na de ku ko mën ku koy jéem ku ko mën ku koy jéem nangeem nangeem mu ji waaw. man lay xool man lay poñe ma bëgg ngeen dugal boobu jël la ñaar loxo bi ngeen bëggee ko ji ñaar loxo loxo. nangeem mu ji nangeem mu ji nangeem mu ji nangeem mu ji dugal la ma ko dugal la ma ko Lord is with now. Now Lord is with now. Where I'm saying, I'm not talking in different time. I will put the imagine I get it more. ñaar fukki jinne kii mooy isin jinne isin jinne génne naa ci moom ñaar fukki jinne boo leen koy gis ci vidéo yi chaque vidéo ma génne ñaar wala benn di ñaar fukki ji ki ki wax ni doomam laa fi jàpp Ousmane yaa ngi moo ko jël si ñaar fukki ji bu leen réeree mbir ngeen gis ni gisaat ko day fekk ci ne ñaar fukki ji ne laa génne ci moom vingt nga ne kii bëri na génne rek ci xale bu ndaw bu tool bi ne kii lii bu génn ci moom du mën a am jëkkër du mën a sëy sëy mais nag incha allah fii day jeex tàkk dina yëpp génn ci moom mu dem ñibbi yàlla may ko am jëkkër ju baax mu sëy sëy man nii laa fi nekkee jàppale jaamu yàlla yi du ma waxantu man damay jëf du ma wane wane wane wane lu li may wane dama koy def je suis après je suis nit naturel suñu émi du ma korop maanaam di wax te fekk du def wala di di di fekk nga dëggul suñu émi defe naa ne yéen ñii yéen a ngi gisal seen bopp n'est-ce ah. leer Gambien ngi fi ay Malien ngi fi ay Burkinabé ngi fi ñëpp a ngi fi ah. ah dañuy sant yàlla rek. léegi nag xam nga ne vraiment italien yaa li ma seet ma toog xàmmee ma yow la ma kii ñaar fukki junni laa ci moom waaye ban moo jot ah ah lan li ne gis toppee gis nga deux heures du matin nii laa fi nekkee ba ay quatre heures du matin cinq heures ma reer moo tax damay jeex jinne la de jàpp nañ ko de jinne la ma yow la kan kan yow la yaay Ousmane xale bu jigéen bi ñaata jinne ñoo des ci moom bëri na ñaata suñu prière xam ñëpp dëgg la. ah li ñu béy mooy lan. dinañ béy muy foofu. bi actuellement ñaata jinne la yor fii. benn mooy man. moom fan la nekkoon Fuuta. ci ay kër mbokkam. léegi mu bañ a jinne foofu de. jinne yaa ngi koy xaar. dégg ngeen jinne fuuta yi ñuy rey dañ koy rey. ngay rey sotti ko diwli bu tàng jaral. wala ndox bu tàng. ana yaaya. léegi nag yow tey da nga bëgg a génn xale bu jigéen. day yomb. lu tax mu ne day yomb. non non du noonu. jële bi dina. koy toroxal. na koy toroxal. lu tax ngay toroxal xale bi. koy toroxal. lu tax nga koy toroxal. dégg naa am na ku nekk Amérique ku ko bëggoon. moom jigéen la. waaw. ko. bëgg mun sonn fii. tubaab bi borom alal la. ah. tubaab bi borom alal la. borom alal la. mu moom mu yóbbu ko foofu. dana dem Amérique bu soobee yàlla. dégg dafa am ku bëggoon jàppale kii yóbbu ko États-Unis d'Amérique. léegi nag ñii jinne ñoo ko kale. yaayam effectivement wax na ma kii am na ku ko bëgg a yóbbu foofu. waaye day def courte campagne. jinne bi nee na moo ko kale. tubaab bi daf ko adopté xam nga ne loolu sens dëgg la. yaa ngi ñëw na fii nee na nee na na fa tëb. dafay àll yaa koy def nee na xale bi la. moom bañ mu yónnee kee. waaw nee na man dañ Aliou Aliou Seye. mais Aliou Seye. ah waxoon na la. ah nga fàtte. waaw naa ko def. léegi nee na moo ko def. yow yow dafa yaa nga de. waaw. waaw nga dugg rek nga fàtte. ndekete jinne yi moo def pour nga fàtte ko. waaw. léegi nag léegi nag yow léegi yow yow sa doom jàpp naa ko n'est-ce pas léegi nag damaa bëgg nga jébbalu. du ma jébbalu. sinon maa ngi yow dana tàng de. waaw dana tàng. dana dana tàng de. tàng si. ah tàng jël. tàng ragal ragal ma man gaynde laa ku ma gis xam ne man gaynde laa. yow gaynde. waaw gaynde laa. yow doo muus. muus lu ko mu mat lu ko mu mboot ah jinne bi neen day faram-faraay mu wax waaw léegi jinne yow laay déglu yow jënd ku amul tur am na ah loolu noo tudd ah Haydara ah jinne bi nee na Haydara la tudd xanaa sérif nga ah tuuti ma jege di ba mu baax jinne bi nee na tuuti mu jege sérif nee na Haydara la tudd ah Haydara téye leen ko foofu ci ginnaaw bu la ko leen loxo yow séntiré leen loxoy foofu ay dara bloqué leen ko foofu bloqué leen ko foofu bloqué leen ko foofu génn bloqué leen ko xàppee moom naa ngi yem bloqué bloqué bloqué leen ko foofu bloqué leen ko bloqué leen ko bloqué leen ko dindi bloqué leen ko dindi ñoo yem bloqué waaw léegi da ngay jëkk ci kii wala doo génn génn moo la wax génn tey dinaa la def lu métti ma def. dama ah. yaa ko wax. yaa ko wax. doo ne baalu. ah ma baal. du ma baal kenn naa. doo ma baalu. rus naa la rus naa rus kay rus. lu rus rus rus. rus la. moom moo rus wala rus. lu tax rus ma. lan moo tax. damay wax fii si lan léeg-léeg man damay sóob yaay Ousmane yaa ngi yaa ngi kii de. mais génn moo nag génn ma sax a ah waaye nag kon xam nga ne foog foog foog ñu def bagage. bagage moom foog ma sa ma suñu yi balaa mu yàqu. waaw ah, suñu yére. faale faale moom la. Ah, yaa wax loolu. bit fee bi day ñëw de. waaw loolu la nee na da koy naan. da nga koy naan da nga koy leen. ndox bi da nga koy naan. da nga koy naan waaw. gis nañu ko leen wax ala ma sumbeeku. ma dem. bisimilah. tafaddal. nee na bisimilah. kon xaaral ma futteeku. ma dem ñëw ma indi vite fait yaa wax ci kanam ñëpp jinne bi moo ne ma indi soo vite fait bi ma ñëw yéen a ngi koy dégg nag barki dem boo njaay gis ngeen jinne bi fi nekkoon di wax doo dara munoo ci man dara mais ba ma génne dafa démissionné dafa démissionné moom moom la man man la moom moom la yow yow la hmm. dégg ngeen loolu kon xaaral ma suñu yére yu jaune yi de loxo yi na dellu si ginnaaw na dellu na dellu na dellu na dellu kon xaaral ma yu ma suñu yi balaa muy yàqu. ma ne. nee na ma dem suñu yëfu mu xaaral. du daw. ah te kenn daw. du ma daw.

nee na bu demee seen dëkk bu laalee ci euh, kii bi la koy sotti. diwlin